mën na dem ba mettre la clé sous le paillasson mooy dafay dafay arrêté nee na mën na dem sax ci ay cessation de paiement wax na façon brandir na la menace maintenant qu'est-ce que aujourd'hui yow en tant que koo xamante ni gérer nga sécurité économique du Sénégal xam nga fii mbir yi war a jëm actuellement est-ce que euh, dafay wax loo xamante ni xëy na pour tiital gouvernement bi la pour ñu gën ko dàmp niñ ko doon dàmpee toujours wala ndax da nga jàpp ne réellement yow le discours bi nga dégg c'est convaincant et que l'État doit réagir ak bu doon réagir fu mu jëm. non réagir état moom man gëmatuma ko parce que gis nga boo mëlëñee li lay dese rek mooy ñoos guro état bi moom dafa mëlëñ c'est-à-dire que mëlëñ mooy nga dem ba ba ñi nga war a yéeye sax amatoo ko cest dire que état amatul capacité pour prendre en charge ces gros dossiers la dañu arriver à l'essoufflement donc li li ñu war a def mooy organiser wu ba nga xam ni la production du sucre ñu sauvegarder ko sur un périmètre donné une quantité qui répond aux besoins au capacité de production ñu sécuriser la quantité bi nga xam ne bi industriel bi investir mën na ko produire sans difficulté. Est-ce qu'il faut renégocier avec lui le contrat? Mais justement, c'est-à-dire que c'est ça que je suis en train de te dire. C'est l'État qui fixe les règles. Première règle, industrie investir nga kenn mënut koo gàddu dugal ko ci valise dem ak yow. quatre-vingt-dix mille tonnes nga mën je te les quatre-vingt-dix mille tonnes je mets un cahier de charge si personnel bi ci suuf yi ma lay jox ci prix yi lépp ñu négocier quatre-vingt-dix mille sécurisé nga am un plan d'augmentation sur le plan d'augmentation ma jox la ay années en fonction des augmentations ma yokk sa protection et au fur à mesure ñuy dem si tu def soo amee défaillance ma réduire sa protection kooku c'est une autre négociation état bi attanu ko en tout cas les pouvoirs politiques yi ma gis ni attanu ko léegi les xam nga bu fekkee da ngay da ngay importer un produit stratégique ñu ne ah suukar dox na nga dem suukar